xaaral ma teg whatsapp bi ba liggéey ba pare rek sinon day tardé sama liggéey bi kon nag su ma toppee bi du ma fexe ba àggale lii may def. أذكر dara daxuti nelaw man waxuma ak yow da nga rew sa kanam gu jëli élan gi mbaxal salu ñoy réré daw ba leg raxaso ko di waj waj ni xaj bu mer rew nga lol raxasal li nga nopi man bu la ci ñew juutu raxas ko yow war nga wax ak man naan ma nga ñew juutu waaw baxna xam nga ni man resuma la lepp sam papa la rek mom mi la jël tek la sama kaw ah sam papa la ding ko wacc ding ko wacc de ndax ni nga nek ci kër gi yépp bu ñëw dina ko yëg eh dimbali ma xanaa nga wax ko da mën a fen sa kanam bu jëlee na déglul. <coughs> waaw dalal dalaluma dalaluma dalal tonu ma ba suma étoile. waaw waaw waaw allo waaw chéri waaw waaw man la kay maa ngi si jàmm. man la kay man la kay mais wuy ma a daa lu xew xam nga koor gi mu ngi déglu déglu déglul koor gaa ngi waaj a ñëw suba la suba feeñ yow lolu amul wéranté feeñ juma tax ko ñëpp nodd nañ ko feeñ na wa balaa balaa maa déglu déglu balaa maa leeral point bobu kooru daaw ni ma def neexuma bayima wor bisu aduma ba 5 heures nga fekk sama andi fi say ok yoy yak sama kor lolu lolu bul job ak man lolu bul job ak man lolu waaw waaw waaw légui nak ren dama bëgg ñu tejj saison bi tey pourquoi pas tay parce que suba dañuy wor suba dañuy wor waaw kay heure 18 h day bax ñewul 18 h fekk sama papa new fi te xaj bu mer bi day génn heure boobu day dox yi daa réew te bari wax waaw ok bébé dinaa la xaar dinaa la xaar je t'aime aussi ok. tey rek laa joomi lu nekk rek ngay dégg ay tëj saison waaye bii dem moo lay tëj ndax balaa ngaa tëj wala xool boo ko tëjee sam bu ñëwee dina la tëj. mu mel ni dama dégg ko yoo xam man sama tur laa xaar sama. yaa raw cin bu nu sànni man ngaa fen lool waa ba tey te et jeex na de. wax ji jeexna yow da nga rew sama saison dina ko tejj li wax xamoko ñaata yoon laa la bu may wax téléphone bu luma déglu. salaamaaleykum man da may xaar ba dégg sama touré rek. salaamaaleykum. yow wa yow ma jam la yow. eh ci na war wa li lan la. lepp jam yaa ngi tudd. Ah. lan mooy seen problème. xaj bu mer bii la réew rek seen kër gi mel nañ leen fee suulal kaani. xale bi mu liggéey ngir yàlla. mi ngi concentré wu bàyyi ko mu liggéey la yow mi ah bàyyi ko mu liggéey sama rakk la quoi bul wax yooyu si kanamam tamit. bàyyi ko mu liggéey. Ah. waaw. boo tëree liggéey kii dafa réew. xam laa lay xamal seytaane la. li ngay seytaane yëpp nga génn ci samay wax dégg nga si li ma la wax. amul yi amul ah dégg seytaane nga chaque jour ak fa ngay far fu tooy rek nga tag génn ci samay wax nga may saf Ouzin Keita nii. bëri bëri ko wax naa la i ñàkk fayda yi ngeen di fay fay loolu si ne lan moo ne sa bërëng bëri ko. yaa leer laa lay wax nag. da rek Ouzin waa bee. Mhm. sama kanam gi froissé wul nii. non même pas sax pourtant yaa ngi belle comme d'habitude. maa ngi rafet. yaa ngi rafet comme ah. d'habitude sax. est-ce que duma laal tout poudre ni? waaw pour pour baisser baisser là. mais su ma sañoon na xam nga doo def maquillage. lu parce que da nga ko wan. wala eh? sa xol gën a rafet. déedéet. billaay wallaay talaay. dafa non si. moom rek ci àddina. yaa ngi belle bébé. wër na yàlla. be waaw waaw lépp neex na ba pare fii kay fi mu toll lépp exceptionnel xam nga nu may def ak yow mhm. waaye ma dem laa sama yaay dima laajte oh waa bee bi nga takkee sa dàll yi nag laa xam ne da ngay dem loolu xam du neex du doy mais nañ ko kii ba beneen yoon rek waaw comme d'habitude balaa ngay dem hmm. muy yàlla bu muy raye ay waay bébé yaa def nii nii laa def kontaan na yow jàppal ni fi mu toll nii saison bi nangu na hmm. te koor gi yàlla yàlla da koy jël jour dem na hivernal fi mu toll nii jour dem billahi bébé na ma gisee. rafet bébé yow booy dem sa waroo ma di xool. di bébé sama yaram daa kii dama am fragilité sa faiblesse. ay bébé demal rek demal demal bul ma xool bébé demal ay bul gestu bul gestu bul gestu ay ay waay defatina mën nam de. barke Rasulaay ah. gune ki yàq na ma waay. xaaral na ma jéem a sol yére génn balaa paa bee ñëw. la ilaha allaaxira ca bàyyati na fi patrimoine patrimoine gune gi armoire musée la fi am musée tey day ñëw bàyyi fi ay suba mu bàyyi xoolal li fi bàyyi sa bataan bi laa la koy dugal sa bataan bi lay dugg patrimoine musée owe oh, la koy dencal ci sa musée bi patrimoine nga fi am barki rasulillahi fi mu toll ni daal kum neex góor ak jigéen musulman chrétien sénégalais ak sénégalaise koor gi yàlla nangu na ko kooru jàmm Mubarak, Goli Records. Ramadan Mubarak.